pour stabiliser anne bi il faudra ñu xam ni il faut que ñu orienter à temps les élèves yi nga xam ne am nañ bac mm-hmm, d'habitude ku am bac day toog 6 mois ñu doog ko orienter c'est-à-dire juillet lay am bac toog ba janvier wala février ñu doog ko orienter mm-hmm. mais cette année là à le séminaire dañu ni ku am bac 2 mois après c'est-à-dire au mois mm-hmm. de septembre dinañ la orienter orientation dina dem ba octobre c'est-à-dire 15 octobre octobre bu jeexee semaine bi si topp à dire le troisième lundi du mois d'octobre mooy le 21 octobre élèves yi nga xam ne am nañ bac 2023 2024 dinañ leen orienté mhm. loolu dina mën a tax ñoom ñu teel a tàmbali te ku teel a tàmbali di xam kañ ngay jeexal mhm. te boo jeexalee nag dina am intervalle intervalle boobu mooy 16 mois yi ñu bind ci mesure phare yi mhm. mooy intervalle boobu mooy tax 2025 octobre 2025 2026 année boobu noonu ñu stabiliser définitivement et de façon péremptoire l'année académique universitaire